السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبقوا حضر ملكية تيفي تواوان ينبقوا تجان ينبقوا جلت تايميني تيكي زيارة جنرال بي محمد تيلي مولاك 87 اديشن بسرين بابا كارسي ñu انا ko في tay le 26 mars fi ci tiawal bo len xolé nak ma sha Allah yeleng ci hadara malikiyya ñu ngi nii ci zawiya Seydi Aboubacar Sy jàkkaarloog moom mbooloo mu takku mii nga xamante ni foo natt sa bët na ko macha allah ñu ngi ñëw nag ànd ak pas-pas ànd ak yéene ñëw ngir feddali seen pas-pas ci Seydi Aboubacar Sy nga xamante ni macha allah lii mu ngi ko woote depuis 1932 allah mu rax rek raxul dara loo xamante puukare la ndax macha allah njaboot gaa ngi ànd nekk benn tey fii ci Tiwaawan ku ñëw tey rek sa xol dina fees sa xol dina yëg loo xamante ni fa tabarakallahu li nga xam ne njaboot gi ñëpp benn la fa tabarakallahu muy nekkoon ay image yoo xamante ni rek mooy pas-pas bi taalibe yi am fu ne nag taalibe jóge na fa macha allah fii nag ci raw di bii fi la Seydi Aboubacar Si nekk macha allah ñu denc ko kilifa yi fi mu nekk nii ñu ngi waxtaan maanaam ngir dalal taalibe yi ngir dalal homme politique yi ngir dalal gouvernement bi macha allah njaboot yëpp nekk benn xadara Malikia TV Tiwaawan nag taxaw ngir may leen lépp loo xamante ni image wala vidéo ci ndimbalal ñi nga xamante ni moom utilisé tey fa tabarakallahu ziar bi nag nekk ziar boo xamante ni macha allah maanaam wuute ko rek maanaam. wute ko rek ëpp na ngeen gis bu bari lool fa tawarak allah kilifa yaani waxtaan di ñaanal sëñ Abdoul Aziz Al Amin yàlla may ko wér yàlla may ko katan mu taxaw jité njaboot Seydi El malik jité jiite njaboot gi nga xamanteni ma sha allah ñooy taalibéy mamam di taalibéy dayam di taalibéy ay magam fa allah hadara Malick yàlla di ñëw fii di leen jagleel li nga xamanteni mom moy ay image ak ay vidéo macha allah di kontaan bu baax a baax a baax ci taalibe yi seen déplacement ndax fa tabarakallahu liggéey bi nga xamante ni COSCAS liggéey na ko ak daayira Moustarchidine wal Moustarchidaat ba nga xamante ni wàllum organisation bi dara nekk ci loo xamante ni lii lu matadi la ndax lépp man na ku nekk boole na kattan dina am ñëw joxe ko ngir bis bi rek mën a baax ndax Seydi Aboubacar nag maanaam ay mbiram daal moom daal di setaan taalibeem fa tabarakallahu njaboot gi ànd ak sëriñ Abdoul Aziz Al Amin di xalif général des Tijanes ànd ak sëriñ Mbaye Sy Mansour ànd ak alxaaji Abdoul Aziz ma Dabakh nga xamante ni moom mooy Mam Maodo ànd ak sëriñ Babacar Sy Mansour ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Pape Malick Sy Babacar fa tabarakallahu ngeen xam ni Tiwaawan tey ñëpp a nekk benn macha allah. lii ngeen gis nag moom mooy Tiwaawan ndabat ak dal parce que am na waaye bu xam te bi lépp pas-pas la ngir bëgg ziyaara ki nga xamante ne moo nekk ci biir fa tabaraka allahu ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allahu ci kanam macha allahu di jéggalu ñëpp di leen jox rendez-vous xam naa ni incha allahu ci kanam ci image yi nga xamante ni moom mooy jëm ci biir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi